mi ñu tudd Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri soog a dem yam na xadiimal Moustapha yow mi yaa jëf jommal surafa daane nga mbëri soog a dem ahaadani albaaqi inda mamarriya wa fil awtaani aadani albaaqi min ash-shaytaani inda mamarriya wa fil awtaani. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi nga xam ne yéen a ngi nuyu seetaan noo ngi leen di nuyu fooy mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew eh, ki nekk ci kàddu gi seen mbokkum taalibe Cheikh Kane Dongo noo ngi fii tey ci Taïf. tey jii ci ajuma ji ni ngeen ko xamee euh, war a waaj nag ngir dem Touba ci bis bi nga xam ne mooy bis Serigne Touba Seexul Xadim war a fekk itam ki nga xam ne mooy jëwriñu mbooloo mi di Serigne Bara ci liggéey bu mag bi nga xam ne mooy màggalu Hissatoul Moukarram di bis Serigne Touba Seexul Xadim xam ngeen ne jamaatul muridin saadixiin itam ci liggéey boobu at mu nekk euh, ci taxawaay bi nga xam ne ci ndigalul Serigne bi at mu nekk danañ koy taxawee section bu Taïf itam xam ngeen ne niñ koy defee saa bu nekk ci waajtaay ak yeneen section yëpp noo ngi leen nuyu waaye section bu Taif nag tey jii kon ñu ngi ci waajtaay gis ngeen mbooloo maa ngi noonu ñu ngi rappel oto yi li nga xamante ne bii mooy euh, wàllu yoon wi léppit euh, tubaarkalla organisé nañ ko ba tubaarkalla kon daal fii ne mbokk yi mën naa ne xam naa ne ci kanam tuuti rek bu ngeen toppee ku mel ne sëñ Moustapha Kane ak mboolem waa communication lépp lu ci ñëw rek incha allahu danañ leen ko waaye fi ñu toll nii daal euh, ci a départ toll noo ngi leen di saare bu baax kon geen suivre li nga xam ne mooy xew ci yoon wi ak li nga xam ne mooy xew bu ñu àggee ak it di continuer rek di suivre lépp loo xam ne xew na ci màggal gi incha allahu bu soobee sunu borom dara du leen ci ëmp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu seen mbokkum talibé Cheikh Kane Dongo fii ci Taïf jërë ngeen jëf للمجتبى وجاد بزبينا قبل ثنا يقلد في المدينة أقلت قمتي لدى كناكري للمصطفى الماحي بلا مناكري هرب مني قبل في كرم بصاب مبارزي ولسواي حبساب ملكني الملك عند دومي ما قد كفاني إذا تساومي نفعني النافع في لبرولي بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجد عند بابلي qablu bima bihi anaara mahfali lilmuntaqa wajjatu fi qabla bisab ma qad kafani aduwan hubisa shaqa ala shaytani inda galwa kawni qadima man kafani albalwa yasuqu sarmadan li ghayri la duran wala ilaha illa lahu أنكراك إن الإله والنبي لا يشكرام إلى دوايا كل من لم يونيك ولد والله العلي المكون نفع لغيري كل من تكبرت باق حباني بمزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى متقى لغير ربي ولغير المنتجب يساق من زهد في واحتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مقدي بمذنبي جهاديا قد وبين ربحا ولسواي كل قلب نبحا يندم في دارين من آداني بعدل باق فضل أداني من غير بشر ومن الشيطان عاذني من جاد بالأوتان من غير بشر ومن الشيطان aadani man jaada bil awtaani min gayri bisrin wa min ashaytaani aadani man jaada bil awtaani umbitu anna rasul lallai basharaani wal bishru inda rasul lillahi maamulu أنبيت أن رسول الله بشراني والبصر عند رسول لله مامول أنبيت أن رسول بايعته عند دائي وثبتني بكافذني قما تنقيل ألقيل لا لم صبرا جامي لن واقتديت بمن فاق وليس مجاك ذي أن إذا نيل جاءت دمرا طويلا في العدا وما دوم مع الأنين وكل لم بعد مجدول قد أدبر بأنيم نما أذى وبوكا وليس لي عن الحياة سائتا ليلوم فر لغيري بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنويل سكري لرب كريم كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا سكري لرب كريم كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكرا وذكرا وجوت وجمعي في شهر النبي سنادي للأكرم الرافع وبشكارا رجوت منه تعالى شكرا أما salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaara bu baax a baax noo ngi fii ci Touba nag ni leen ko waxee woon ci départ bi tey jii ci gaaw bi ci section bu Taïf kon agsi nañu fii ci tuubaa defe naa lépp lu doon xew ci yoon wi Eh, ñi ngi leen ko doon wan kon bu fekkente ne yéen a ngi siiwar seen eh, site Ahibahil Khadim ak eh, compte YouTube Ahibahil Khadim TV ak seen groupe jamaaxatul muridina saadiqina kuréel 1 ak kuréel 2 yëpp rek ak groupe Ahibahil Khadim loolu lépp rek ak ci yeneen site internet yi euh, li doon xew ci yoon wi ak li xew ci waajtaayu bis bi lépp euh, mi ngi jàll nuy gërëm itam ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal suñuy caméraman sañ Moustapha Kane ak équipe bi mu àndal euh, kon section bu Taïf mbokk yi niñ leen koy waxee agsi nañ fii ci Taïf noo ngi fii ci Touba noo ngi ci dal bi nii convoi bi itam niñ leen ko waxee xam ngeen ne convoi lu xaw a jafe la ndax itam fokk mu am ay yeex-yeex ndax noo ngi départ Taïf 10 noo ngi agsi fii ci dal bi 11h55 euh, xam ngeen ne loolu it li ko waral rek mooy mbooloo waaye nag lépp alhamdulilah rabbil alamina jaar na ci yoon euh, jaar na ci itam lépp noo xamante ni bii rek noonu lañ ko bëggee woon am nañ ci lu kawe njort kon mbokk yi euh, xam naa nag ci kanam tuuti bu ngeen toppee ba ñu daggu nag ba nit ñi nga xamante ni bii dal nañu bu ko defee dañu daal di génn ñenn ñu nekk daal di dem nag ci tokkoor bi xam ngeen ne dal bi fii mu nekk nii. section bu Taïf ñu ngi leen dalal ci école yi nga xam ne moo jàkkaarloog buntu Tokor bi bu ko defee kon ci kanam tuuti danañu yegg itam nuyu jëwriñ ji Serigne baaraloo daal di jàll itam ci liggéey bi commission bu nekk itam daa di dem ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam. kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon leen doon xamal ci tolluwaay leneen lépp lu ci aju itam dañ leen ko waaye combat bi nag mbokk yi combat bu xaw a mag la wax dëgg yàlla ndax itam euh, oto yi xaw nañoo jege ñaar fukk ndax euh, kaar yi rek war nañoo mat juróom wala juróom benn euh, nu ànd ko itam nag ak waa Ahibaahil Khadim section bu Taïf wax dëgg yàlla muy benn combat mu rafet lool ndax itam ñenn nit ñi la ànd ko it ak ay oto yu ndaw yoo xam ne waaye ànd ko itam ak waa Daaru Minam Taïf ànd ko ak waa Kolobaan ànd ko ak waa Gerle Seck loolu lépp itam di benn convoi boo xam ne itam section bu Taïf noonu la ko baaxoo defee loolu it kon mbokk yi muy lépp loo xamante ne bi rek ak benn la la waaye itam nit ñi di ñeen nit ñoo xamante ne loolu itam ñu di ci sant dee ci gërëm waaye ñu di ñaanal sëriñ bi bu baax nag loolu lépp moom mi nga xam ne Cheikh Moustapha Al Karim ah danoo ñëw ci waaye ànd ko itam ak président sous section euh, ak président section bu Taïf di sëriñ Abdoulaye Makhtar Lo ci ndigalam moom itam ak mboolem ñi koy jàppale ak soxna Khoudia Mbaye waaye fekk fi itam sëriñ Baara Lo ak soxna Bousso Lo ci tookal bi kon mbokk yi xam naa euh, bu ngeen toppee rek euh, ci communication bu Ahibaahil Khadim ak communication bu Jamaatul Mouridina Saadixiina dara du leen ci raw bu soobee yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. mi daane nga mbëri soog a dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal su rafaa daane nga mbëri soog a dem